Amat Amat Aj ñëw na Ndakaaru Njaay Amat Aj ñëw na ci poids lourd yi quel entrée Amat Aj waaw waaw cey waaw waaw Papa Gueye mu ma ngi doomu Sowal a ale buna job be fi yangore te fab toki job lingeer xoolal ma ba ak bidon ba cay si am na njëriñ cay buna ma job borom sum champion bi ko ngi koy bëggee di nuyu au passage di bëggee Adoline cay waaw waaw Basirou Soum sax alaaji maam borom Espagne ñoo ngi leen di bëgge du leen di siyaar sey waay sey waay amat aca ngi noonu lagat bi de may fàttali ma nu sum sumuy amat aca ngi noonu sey la va série 2 Daga Senghor a ngi noonu ndeysaan topp na Wow! Wow! sey Wow! Wow! Wow! Mafra ne to chitagela